jërë ngeen jëf juróom-ñaari sage ca conseil constitutionnel am nañu soxla su toll ni innama jolli les éco nañu recours yaak réclamation yaa ngay jale ca taabali siis Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba yónnee na ab recours ca conseil bu Bassirou Diomaye Faye ak bu Cheikh Tidiane Dièye Thierno Alassane Sall moom it yóbbu na ab recours démb ca talaata ji ca conseil constitutionnel ngir da ca ñaawlu candidature bu Karim Wade bi nee na Karim warul woon a bokk ci candidat yi ñu validé ndax dafa yore ñaari nationalité te loolee constitution bu Sénégal da koy bañ Sud Quotidien nañu recours yaa constitutionnel vox populi dañuy wax ne Thierno Alassane Sall def na la ma waxoon yóbbul na waa conseil constitutionnel ab recours boobu la mu leen ca wax moo di candidature bu Karim Wade bi c'est irrecevable ndax condition yu constitution bi teg di constitution bi ñu móoloon 22 janvier 2001 Thierno Alassane Sall ne Karim Wade électeur la ci réewum France ba léegi Thierno dem ca bay joxe sax numéro électeur national bu Karim Wade bi ci fichier électoral bu France Thierno Alassane Sall ne ba ci bésub fukki fan ak juróom-benn ci weeru janvier mu di janvier 2024 Karim ma nga woon ci liste électorale

ñi bëggoon a bokk ci présidentielle 2024 yi te ñu rëkkale leen ca parrainage yi am na lu mat ñeen fukk ak juróom ci ñoom yu ñu la ñu bind seen lettre ba mooy di sàkku ci président Macky Sall ñu arrêté processus électoral bi ndax nee am tir bi nañu du rek tey du ñoom rek ne candidat yi ñuy rëkkale ak na ñenn ci ñoom ñu booloo di sàkku ci njiitu réew mi Macky ñu defaat parrainage yi le témoin ñu ne ñu bu weesoo li ñu ne nañu arrêté processus électoral bi ñoom candidat yu bëgg bokk na ci ñu décalé wote présidentielle les éco nañu gaa ñi bataaxal bu woyof la ñu bind président Macky Sall di sàkku ci moom mu fexe ba ñi ñu seppi ci élection présidentielle ndax waxi parrainage ñu delloowaat leen seen àq ak seen yeleef mi ngi ñuy wax it moom yéene kaay bi ne am na ay candidat yu ñu rëkkale ak i nit yu fore ci nguur gi fi nekk yu tàmbalee jibal xalaatum ñu reporter élection présidentielle yi ndax nee nañu suñu réew di Sénégal jekkagul ngir organiser élection fii ak weeru février 2024 prolongation yi Bougane Mimi ak compagnie delloo nañu yëfi Macky Sall moom Macky Sall le public yéen kaay mi ngi ñuy wax ni ngir bëgg a sauver candidat di Amadou Ba moo waral mu bëgg jaare ci conseil constitutionnel ngir liquider Aly Ngouille Ndiaye ak Mahammed Boun Abdallah Dionne mi ngi ñuy wax moom le public yéen li nekk ci recours bi waa Benno Bokk Yaakaar yóbbu démb ca conseil constitutionnel waxi quitus fiscal moom la bëgg tegal Aly Ngouille convoqué nañ leen tey ci yor yor ca conseil constitutionnel leen juge yi di doyee ba tax ñu woolu leen moo di képp koo xam ne sab candidat dafa bokk ci ñuy recours ñu wax la ko ba noppi wax la la ñuy toppee sab candidat sursoo nañu fore nañu ci yoyu bay ne kii di Amadou Ba ñi muy visé ci recours am ba Mame Boye Diao la Aly Ngouille Ndiaye ak Mahammed Boun Abdallah Dionne loolee bu dee dëgg la sursoo ne nañu xàmmee si ko ak amadu Ba mu jël aw sémiñ di gor ab yelam ndax bu tour amee ci élection yi Amadou Ba war caa bokk ñi mu doon fexel ba tax mu leen doon recours ca conseil constitutionnel boobu ba kenn ci ñoom du ko ci ko ci kaso bi bu yàgg ba léegi kii di oustaz Assane Seck génnagul kaso léegi li tax mi ngi ci libération yëral xët mu njëkko yéenekaay bi liberté provisoire bi mu doon sàkku libération nee nañu dañ ko koo bañal chroniqueur bii di Pape moom it libération mi ngi ñuy wax ne bu deful ndànk dana dem kaso ndax procureur bi xëpp na suuf ci contrôle judiciaire gi mu nekk procureur bi def na appel bay sàkku ci ñu mandat dépp ko moom Pape suba ci alxames yi yéenekaay bi nee nañu ca la